mandat dari, mola so am kuan Juan Branco donc di leen wax ni dañuy fan Juan mo mo ñuy wax mandat dare moo ñu dugg def conférence wax ak ñom di dox ay soxla na Juan da ko def ci moment bu doy waar Juan da leen bindal porter plainte au niveau de ces pays CPI ñoo yónnee ay nit tey lañ fa wàcc ci aéroport ba biig si guddi moo tax xool il est intelligent moo ragal naa ni waa CPI la àndal moo tax bu muy gis gars yi naan ay jàpp nañ xool dama doon ree ma neen jàpp xool <laughs> gars yi xamuñu lu xew sax waa CPI ñoo nii gouvernement bi nëpp ko Sénégalais yi ñëw nañ waa CPI ñi ngi Sénégal di enquête les enquêteurs de de la CPI de la Cour sont présentement à Dakar est-ce que ànduñu Juan Branco sont présentement à Dakar ku xool Juan Branco xam ne newul jaarul ci ay oto wala xoolee kanam gi xamul ne nekkul ku sonn dugg ci ay oto kurti kurti làqatu déedéet Juan tubaab la bu wàccoon Gàmbi dugg ci ay oto kon dinañ ko gis Juan ñëpp xàmmee nañ ko Juan bu làqatu woon ci ñëpp gis ko mënoo dugg Gàmbi jaar Gàmbi dugg sa non <laughs> moo tax ma leen maytu leen Juan de Juan il est super intelligent daf leen porte plainte CPI tiital leen yóbbu leen fu waa CPI jóg yónnee benn euh, ay enquêteur ñu wàcc fa bég si guddi Juan moom xolal ñooñu bu ànd ak kenn mënu leen wax Juan bul ñëw Juan ci avion yi la jaar joxu la sax kanamu ku sonn ku dugg ci ay oto kuy nëbbut Juan ci avion yi la jaar Anda ak CPI man lo lagem lo lagem laa CPI enquêteurs yi wàcc aéroport ñi nga jamono ji ñi ngi Sénégal moo tax xoolal bu doon saaga seen nday mënuñu ko jàpp ma dama ma gisee yéen dox naan jàpp nañu xwan kenn ñi moo da jàpp xwan nañ dem jàpp ko nañ dem jàpp ko ana procureur ay dëgg na xwan dem xwan dina avion ñëw rek ñëw nii Sénégal rek joxe boppam noonu non daa ànd ak enquêteur CPI yi ngay wàcc Sénégal lu def enquête xool ñi ñu rey ñi xool porte xool moo porte plainte bu ñu ne ci mbedd yi nag noo xool mënuloo porte plainte ñun ñooy troisième fii ñooy pays africain <laughs> waa Nations Unies yónnee seen enquêteur ne dem xoolal ma gars yi ñu ñu rey ñu leen reyee waa union européenne yónnee seen enquête dem leen xoolal ma ni leen rey xool porte plainte CPI ñëw comme moom porte plainte ñu ànd ak moom dugg biir Sénégal mu mu mu avion la dugg wàcc fa ci jàmm def conférence am bu tàng jër mi ngi doon di dox ay soxlaam ñu naan jàpp nañ ko war yow gars yi ñii ay tàppel lañ ne ban ñaata autorité ñoo ma woo fii barki Seydina Mouhamed bu fene yàlla ma safari jël addiya di wax pour ma dalal leen ma dalal autorité yi comme man damay dégg teg xwaan ñu woo may waaw voilà dalalal gaa yi parce que gars yi ñu bëri dañoo ragal a dem France